waaw ah, bokk internet ñu ngi leen di nuyu ba tey ñu ne ak le grand champion Mame Balla Pikine mbooloo mu am ndam récemment ci kaw ki nga xamante ni mooy euh, Tapha Mbeur euh, ñu dellu ziar wér wér di nuyu mbokk internet bu baax a baax. waaw ah, Mbeur récemment nga bëri am ndaw ci nga xamante ni mooy Tapha Mbeur ñu revenir un peu ci combat boobu parce que préparation bi yëpp coow li bëri woon na ci nan nan nga ko waajalee. waaw sant yàlla rek waaw. dugg nañ si bisimilah rahmaani rahim génn seeg alhamdulilah rabbil alamin ànd seeg suñu mbokk ànd seeg suñuy dëggandoo ànd seeg suñuy gaayen xam nga loolu def si liñ ci war lépp quoi. waaw ñu gis aussi à nga nekkoon ci ay donc jafe-jafe yu bëri ngay tegale ay revers yoo xam te ne tey na jaaxal ñëpp moment yooyu ko doon dundee. waaw mooy rek sant yàlla si tous les plans buy neex lépp loo xam ne nii moo war a may ndam nekk moo loolu quoi def nañ ci loo xam ne tamit nag wax dëgg yàlla mosuñ ko def ci làmb ci wàllu financement ci série waaw côté bu nekk quoi ci entraînement yi ci lépp mooy loolu amoon nañ ci yàq yàqin bu réer suñu borom la ñu may dem daal. bu ñu la xoolee aussi état bi macha allah wane ni dañ nga ay coono pour ñëwaat donc ci yan yoon nga teg woon pour mën a revenir en force. waaw tegoon naa ci ay yoon yu bëri bëri parce que daanaka dama ne ma mel ni mbëru mercenaire quoi muy mbër boo xam ne nii am naa moom jaamu te boog ma am écurie bu laajee ma entraîné ak moom. entraîné naa moom bu laajee ma contact dem naa ko def naa ko fu nekk laa doon def non mbaru Pikine mbaru Géejawaay yëpp mooy loolu quoi xam nga moo fi nekk di lim quoi parce que am si loo xam ne ba desaan yi da xam ne nit ñi da ngay yéene quoi bu dee wàllu jàppale tamit wax dëgg yàlla waaw jàppale ma si am mosuma ko am fenn quoi wax dëgg yàlla di bëre ji nekk si di bëre yàlla dogal ma waaw ñooy lu mu dee dee dee da ngay yor benn un million di ko doxantoo boo amee soxla lu ñu ne lii si wàllu combat bi nga génnee ko def ko si wax dëgg yàlla xaaroo ci kenn sant yàlla bu baax quoi Nous gis aussi avant combat bi nga doon dégager benn confiance pour jaaxal ñëpp te doon bëri xale koo xam te ne musul daanu confiance boobu fan nga ko tegoon. waaw tegoo fenn dara parce que yàlla moo koy may yàlla moo may may yàlla moo koy xañ yàlla moo may xañ quoi mais dégg bu dee wàllu liggéey wàllu wala loo xam ne ñu ne làmb xel mu dal moo koy def ci loxo yooyu quoi sama xel dafa daloon macha allah maa entraîné deux fois ba trois fois léeg-léeg sax dañ may léeg-léeg sax dañ ma def deux fois. te entraînement wax dëgg yàlla boo demee bëgg a def rek day fekk sa xel day dal quoi waaw bu sa xel dalu wax dëgg yàlla di nga bëgg waaye doo dem quoi waaw te bu sa xel dalu tamit di nga entraîné waaye doo gis njëriñ bi quoi waaw buñ duggee ci combat bi manière bi nga bëri ak moom mun nañ da nga ñëw dicté ko sa loi ba am li nga bëgg ba mbot bi nga ko daanee sax ñu bëri xaw na leen bett lan moo tax nga entamé combat manière boobu waaw parce que man dama ñëw ci làmb ji benn instant nii xamoo di dem ci làmb te xamoo ko ni nga war a def mooy mbër bu pareewul quoi mais man dama ñëw ci làmb ji dama dama programme sama adversaire bar bi soufflé dama def garde ba dox ci kawam encaissé kawam bu gisul lu mu xamul dama day yooru jël si ma te su ma jëlee dama ma tëg combat lu ma waajoon la quoi dama ñëw si làmb ji nag ma tari ko quoi parce que xam naa ne mënumaa dóor ko coup bu ma gaañ mënuma sàcc doole si benn côté kon ça veut dire que man su ma bëreeg moom cinq minutes sax benn instant nii am ci ndam sax waaw wax dëgg yàlla ndam loolu du neex du neex du neex nit ñi du neex Sénégal waa du neex sama supporter tamit quoi waaw kon man li ma arrangé mooy man ma dox dox ci kawam ma songee ma daan ko jël bu gaaw. kon jàpp nga ni yaa gënoon pare si tous les plans. non maa gënoon pare si tous les wax dëgg yàlla parce que maay entraîné daaw entraîné naa ba dégg ay combat wax dëgg yàlla euh, ba dégganteeg sama sa Pam Mayel Diop mu ne ma doo bëri déwén ngay bëri kon di ma fay saal may fay saal chaque weer soixante-dix mille sama carrière mosuma ko def. am ay course box yu ma yor am ay course yooyu ma yor may dem fii ba kees di entraîné ji ñëwaat mooy loolu ak cause sama papa mayen mooy Faye Sarr moom defal lépp dama jox oto fu ma war a dem mu ne ma dama dox lii dama dox laa ba yàlla dogal mo 15 mois combat bi soo ko taxaw préparé moon pour bëri booy bi rek moom préparé woon pour ñëwaat ci làmb yàlla dogal tamit ñu wax may adversaire trois adversaire affaire def nii far yàlla mu tombé ci moom moo jël ko waaw mais man bi may jóg pour liggéey dama liggéeyoon pour ñëw pour dellusiwaat si làmb pour jël sama place mais pas moom yàlla nag moo dogal maa moom ñu daje affaire yi noonu quoi. waaw nga jógee fu sori keroog nga ñëw bëreeg moom avec la manière am ndam ci kawam bi at bi nga ko daanee ba yëg ci kawam at bi daal lay jox ndam lan nga yëg. waaw benn instant nii daf ma dara lu sant yàlla quoi tool yi bëri woon na gars yi mais ñëpp dama leen écarté ma yàlla suñu borom waaw sant samay waajur ànd ak sama sang fois xam ne ndam lu jom moom waru ma am ndam loo xam ne day tax may def naka su noonu wala mu fàtte suñu borom mi nga xam ne tey moom daan xañ tey moom may quoi àdduna fii ñaara moo fi nekk nga romb dese nga xam ne lii dese la nga ñaanal ñi fa tëdd te xamoo leen nga romb tudd nga xam ne ñi dañoo gane si àdduna nga ñaanal leen ñu fekk ay njëriñam ay waajuram ak ñëpp li des lépp jaar jaaru àdduna la kon bu ñu yàlla may ndam tamit benn saan yi dañ ànd ak dal xam ne ndam lu jomb ñu sant ak yàlla bu baax sant suñuy waajur gërëm suñuy supporter gërëm suñuy dëkkandoo ak suñuy am di jàmm ñëpp quoi di ko ñaanal moom tey bu nekkee ci leneen yàlla defal ko ci li gën rek ginaaw ndam loolu mam balla fan la jëm waaw fi ma jëm moom wax dëgg yàlla mu ma ko wax parce que maa ngi dégg adversaire yu nekk waaye comme tey lamb dafa baaxoo boo demee ba nekk si comme man fi ma nekkoon mu xaw a metti gis ay nit génne seen xaalis génne ay millions di ko teg si table bi di la jàppale xam nga comme li ma wax sànq rek dama dem sama papa mal job yóbbu fa visa pour guen bi bëgg guen senegal Sénégal mu ne ma man directeur aéroport taw fi nga entraîné am nga si di ji cër bu dee jàppale nga ñàkkoon mo lol sag la cinq mu jox mo 200000 francs 14 mois sag la cinq mu jox mo 200000 francs na ma demal nga fay sa sal demal nga jëni sa ravitaillement sama xel dafa dal ci côté bu rek suma damay dem entraîné ba paré suma ma ñëwee toog su ma doyul damay delluwaat parce que si géej gi laa dëkk kon nag tey benn saa su ma demee bay dégg adversaire yu bëree bëree bëri te moom àndu ci lu ma ko def sama papa mayel kum mu ne ma kooku laay bëree kooku laay bëree gis naa ñetti ñetti promoteur yu mooy soron ba ci Assane jaay ñu tëgg combat bi nii combat tey bi nii bokk na ci maa ngi ko nuyu de passage démb si guddi ñu ngi déggante ma ne ko man gor laa su ma nee de bëree benn promoteur day fekk yàlla dogal na yow bëggoo tëgg parce que man ne ngay saako bi yaa ma ñëw jàpp pour tëgg ma bu yàlla dogalee tamit benn saa nga war maa tëgg ma ma ne ko da ngay jaar fi nga jaaroon rek parce que combat bi su ma nee bi ma ko jël avance bi damaa toog sama papa Mayel woo ma ne ma sa avance ak Tapha Mbeur mu sama loxo ma ne ko depuis kañ mu ne ma père Ngagne Diagne laa moo ko waxaale ma ñëw mu jox ma avance bi ne ma boo demee nga xaaj ko ñaar joxal ma lii sa jabar joxal ma lii sa yaay maa ngi delloowaat loolu bisu vendredi la ñu añadoo lundi bi mu wàcc ay midi woo ma ñëw mu yëkkatiwaat avance jox ma combat bi ñu ne samedi la samedi bi comme ñu ne samedi bi ma toog ak moom mu ne ma xam naa da jeexal ma ne ko dese naa quatre-vingt mille xaalis mu yëkkatiwaat un million jox ma ne ma mos am lii ma ne ko déedéet mu ne ma bu dee bu dee jàppale rek mu ne ma di ko am moo tax damay rey sama bopp guddi ak bëccëg làmb kenn nekk fi ku ñu jàppale rek moo fi nekk. naa ñaanal yàlla yàlla ya, ya, defal ko jàmm defal ko xew lu baax a baax kon mën na jàpp ni mam bala li ko manqué woon muy li nga xamante ni mooy ci wàllu jàppale fi mu toll ni wéeru nga fu wóor waaw sant yàlla bu baax parce que damay xa damay faral di wax ne ma bugguma nga tudd ñeneen ne dañ la jàppale mais ni ku manqué ku manqué jàppale quoi lamb ji am na benn course bu ñëwoon di ma utiliser si biir lamb ji moo yoroon Balla Gaye incest Pape Mayel moo ko woo boole man man maa ko indiwoon estate Abass Ndoye président écurie man maa ko indi bi ma ne suba laay bëree man ak ñoom ñoo ñoo lay wax ñoom stade bi ñu ñoo toog bàyyi zéro heure laay soog a jógee point ñibbi si géej waaye quoi dama nekk si ay loxo kon mënu ma tëb rek ne ñii laay bëree mais ku yàlla dogal ma war a bëree moom day fekk ñoom ñu d'accord si quoi. mais ma la mais boo nee proposé na la ñoo xam te moom àndul pour nga bëree ñoom ñooñ da leen raw ci làmb wala nu mu demee. non du waxuma ànduñu day day déggantewul mais man mais ma proposé bu ne day des si ñi muy proposé day des si moom mais moom lan la la ma gëmloo ne maam mu ne ah sama xel dafa si côté boobu noonu. en tant que mbër bi ñan jàpp ne ñoom nga a bëree. waaw xam nga ñi ma jàpp ne war a bëree làmb baaxoo ñun meen tey su ma toogoon si écran bi dégg benn mbër yi wax ba tudd ma rek man ak sama mbokk day am feneen fu ñuy gisee quoi xam naa ma toog naa ci làmb foo xam ne nii bu dee bis bu neex am naa bu dee déception bi am naa ko quoi kon tey benn instant nii du ma mag ci làmb mais jàngat naa ci lu bari am naa ci façon bis bu nekk dama daan bëre ba deux heures ñëw sama kër dafa monté ay baltamba wala mu bëre ba pare grand combat ñëw sama kër muy géejaay fi mu dëgg mata bees télé boo gis bu ne indi naa ko fi dem ba France taxaw di bëre canal di ma wone TFM di ma wone kon man am naa succès kon du ma may kenn sama succès man ku ma yàlla booleel benn instant nii promoteur wax ma ko mbokk ànd ci damay bëri ak moom làmb ci fenn nooyul ku dem ba ne mbër laa rek ku am fit la mais xëy na ñun ñoo baaxoo naan noo kii dafa ragal wala kii naa mais làmb ji ku ragal amu fi ku yàlla dimbali moo fi nekk ak ku am jàppale tey bii rafet naa suñu jot baax a baax macha allah. li nga wax am na sab ndaanaan kenn door ko naatable kon léegi mën na jàpp ni rek moom borom top 5 ñëw na ñëwaat na. waa si waa ñëwaat na is back sama kàddu mujj mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm grand boy sama dëkkandoo la ñëw jàkkaarloo. moom tamit dafa def lu am solo benn gannaaw suba sama combat bi la ñëw yëkkati enveloppe boo xam ne nii xaju samay loxo nu ma ko sax tudd yëkkati ko jox ma ko surprise sant samay dëkkandoo yu baax a baax a baax di sama gars yi ma ànd di sant waa Pikine mbooloo di sant waa Géejawaay mboolu Géejawaay nag kaw suuf Balla Gaye 2 ba suuf ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm ki xam ne mooy tëdd fil muy Balla Gaye 2 tey mooy 4 jours bi ma toogee moom lay toog naan ataaya waxtaan moo loolu mu conseillé ma moo loolu xam nga kon tey benn sànni man o mo xaar ma yàlla ya fenn mburu pikin tamit que zalika ne ko noonu quoi ma nuy wa tuba ba ba fala jange wa daru Minam waaw di ñaanal sëñ Mountakha waaw waaw yalla yok ko wer bu baakha baakha baax mu yag fi lool te wér di ñaanal rakam sëñ ya Abdou xamne mom la doon bëgg neew waaw yalla yok ay leeram bu baakha baax di ñaanal soxna maam buse waaw doom sëñ doom sëñ Abdou Khader la nekkoon soxna soxna sëñ Abdou Akim de tamit yar sama gal bir bir néegam la nekkon dafa am foo xam ne dafa faa jaar kon tey man succès jommu ma boo ma xamul nag xamoo ma quoi mais man dama yoroo ci keppaar goo xam ne nii ay ay mbàkk mbàkk lañ ay kilifa lañ daal leen defaral ñuy lekk daal leen toppatoo bu baax a baax kon tey jii benn saa lu mu am lu ne jomm mun naa jéng nag mais du mu suuf du mus a maa ngi sant waa Touba bu baax di sant sama mbokk Saloum Saloum nag waaw gërëm naa ñëpp waaw amna solo donc bokk entendo di mu doron kaddu nga xamanteni mam balé yëkëti nako euh mu mujjé dan nga xamanteni moy tafa mbeur jogé ci ndam lu am solo mu doon waxtaan mam ten yaatal nañ ci bëri di leen sant di leen gërëm rek di sant aussi suma technicien bégay kundul